waa li mag ñi doon wax démb te jëfuñu ko tey kooku day neex ndax nee naa la nett li bañ na dem si yàlla sa am na jëmm ju toog ci saal bi moo woy ne buur ñu ne am ah mu ne buur yàlla moom moo ci ànd lu sunu borom sàkk la ñu ne am ah mu ne lu sunu borom sàkk te dugal ko loxoom nag képp kuy bëreeg yàlla war a tiit kon na ngeen ci ànd moom mii moom moo ko wax ba mu ko waxee ñu ëlbatiku ñu ne buur ñu ne ñett ngi nii ëpp nanoo dugal ci nguur waaye ñett ngi nii ëpp na loo génnee ci nguur con bàllaago mu ne sama bopp ma la gënal dug bañ naa la nee na kooku ëpp naa dugal ci nguur nee na nguur yàpp ak naan folli ku day bette nee na kooku ëpp naa dugal ci nguur nee na lu ma am def ci sama bopp loo am ma bokk ko ak yow su ay wa jotee ma daw bala ak réew mi nee na kooku ëpp naa dugal ci nguur waaye nee na ñett ngi nii ëpp na noo génnee ci nguur ah ñoo bokk réew mi maag moom de tegganu ma nee kooku loo ko dénk dina ko ñawal kooku ëpp naa génne ci ak nguur ah jomb naa ko lépp lu ma jox su dee ab junni ren balaa déwén dinaa ko ful def ko million nee noonu kooku ëpp naa génnee ci nguur nee na fu mu dee ma dee fa ndax bi may fal amoon na ñu bari ñu mu waroon a fal te falu leen ma ne fi ak moom kon dëgg laa koy wax ba keroog luy xew ñëw nu bokk ko man ak moom nee nañu kooku ëpp naa génnee ci ak nguur nee nañu nag soo leen boolee ñoom ñëpp sëñ Tuubaa ne bugguma ci kii mu dugg ci ñoom ñu ne ko kokkan la mu ne ab sëriñ ñu ne ko lu tax mu ne ab sëriñ ci buntu kër buur mi mel ne wañ ci kaw neefere ba mu ko ko waxee keroog ah coow dafa bari lool ndax te dëkkale la ko ko waxee moom Lat Joor Lat Joor tëb daat ne waaye lu gën a gi wax ni kii dama ko digaaleeg moom bàyyi xaali ma jaxate ne ko déedéet jant boo ko digaalee ak moom di nga ko rëccu ndax musumaa gis ku ko digaaleeg moom ba jëlee ci ndam mu ne ko xanaa déggoo li ma lax mu ne ko lan la ma wax mu ne ko ah xanaa kon man naay neefare wi mu ne ko man mi nekk sawet nag di la atteel man ak baayam xanaa kay kon ñun ñooy weñ wi bàyyi ko bu ko def bu ca ànd liñ la wax ab sëriñ ci buntu kër buur nii la mel nee nañu weñ la ci kaw neefare. papa wuy Pape Makhtar. kooku da nga koy laaj taalibe sëñ Touba yi. non non eh ma wax sëñ Touba. sëñ Touba moom moo ne sëriñ. ci buntu kër buur. non non non non man foofu laay waxee. non man waxuma wax man wax suñu royukaay la. man man waxi sëñ Touba laay wax. waaw ah, su si non man kay laajuma man li ma wax. si si royu euh, euh, sëñ Touba suñu royukaay la. Euh, lu fi bàyyi ci ay leçon lu ñu si bàyyi ci ay leçon dañ koy dañ koy dañ koy dañ ah, koy jàng dellu ginnaaw yow kay xuusal déet déet mais dama ni ci <laughs> caractéristique yi nga wax ah. boo nuwee que ni Serigne Touba nga xamante ne mu fonkee xam-xam waaw nee na boo nuwee tamit tamit. nee na waaw nee na waaw eggal fonkee xam-xam. bind ay téere bàyyi fi. waaw nee na waaw nee na euh, euh, ab sëriñ ci buntu kër buur. non man waxuma loolu dama ni. looy wax kon booy wax ci caractéristiques yi boole ci xam-xam parce que jikko baax na loyauté baax na. man li li sama sëriñ wax laay wax. waa sëriñ bi euh, yaakaar naa ne lu muy tàggat. taalibe mi ci xam-xam la kon tey jii bu ñuy dellu ci xam-xam yaakaar naa bu nekkul woon ci xam-xam sëriñ bi du bind bàyyi fi dafa bind bàyyi fi pour ñu jël di jàng mu def aussi. pour ñu koy wax man daal ay waxam nettali rek. waaw de wax yi tamit bu ko yemalee ci euh, ci ci jikko. man foofu laa baax na am na importance mais aussi xam-xam mooy tax ba réew ñu mën ko génne ci guuta. loolu yow la mais man lii sëñ Touba wax moom laa. waaw non non non bul def amalgame parce que ñu nekkuñu di déplacé débat bi ci Serigne Touba lu wax man. ay waxam dong laa fi wax euh, di interpréter ay ay ay kàddu. Euh, Serigne Touba xaaj mënaloo ma daara. te soo <laughs> jéemuma la mënal dara mais dañuy wax ci kàddu yi ma wax dama ne mënoo koo teggi waaw déet xam nga xam nga teggiwuma ko mais dam ci dolli mënoo koo rek déet man bul ma dolli loolu doy na ma dam lay dollil parce que waaw wax doy na ma dam lay dollil sëñ Touba sëñ Touba ci wax ji yow li mu wax rek doy na ma waaw li sëñ na ab nee na nee na ab kii nee na ab sëriñ ci kër buntu kër boobu nee na wel la ci kaw lii père wax d'accord naa ci ndax euh, tey da koy xool tey bu fekke ni borom xam-xam la borom xam-xam bu daw tafu ci état tey plus tard dafay réeroog yeneen borom xam-xam yi parce que chaque jour tamit day jël benn noppam daal di jox état mais kooku mbaam mu sëfi téere la waaw loolu sëñ Tuubaa mais kooku mbaam la mu sëfi téere parce que am na borom xam-xam boo xam ne xalaat non kooku mbaam la mu sëfi téere waxuma kooku gis nga xam nga da nga mën amal gaam nag mënuma amal gaam euh, kat dangaa damay damay leeral li pour nga déet li nga ah, wax da nga ko bëgg a wax bay ñemewu ko man bëréew ma bëréew ma bay daanante ak ah, ah. yow yow booy bëri nga dem ci Balla Gaye ak ci Yékini euh, man dama ni <laughs> euh, li nga wax wax dafa am solo parce que wax na jikko wax na loyauté wax na yeneen ak yeneen mais bu ñu fàtte xam-xam ndax bu ah, nekkee waxu euh, ñi nga xamante mooy mag yu baax yu fi nekkoon seen wax aussi bu ñu fàtte ni ci xam-xam la doon tegu seen wax aussi bu ñu fàtte ni dañu am lu ñu fi bàyyi mm. lu ñu fi bàyyi ay téere la téere li wax léegi dafa am dara lu ko waro dama ni non dama leen nga dolli ci xam-xam parce que tamit bu ñu waree doy na xam-xam sëkk bu ñu bu ñu bu ñu waree gérer yaakaar naa aussi loyauté am na am na solo yéen am na solo mais xam-xam na solo xam-xam ana xam-xam loolu nga man li ma wax doy na sëkk xam-xam j'ai pas compris fii daal naa ne non fii moom jeex na moom tey lu ma ci góobee dinaa ko dal waaye fii moom fii moom su ma fi jógee euh, euh, dama bëggoon mu doon ay yàpp bi jóg jeex na fii moom jeex na moom. waaw d'accord parce que <laughs> aussi bu ñuy jël euh, waxu sëriñ yi dañu am tendance di def loolu ah même sax waxu yàlla bu ñu waxee dañuy jël lu ñu arrangé rek denc nii jël leneen li nga xamante ni da ko wax duñ ko duñ ko appliqué ah. euh, sëriñ yi lu ñuy wax tout temps xam-xam da cee bokk ah. euh, bu ñu nee ñu dem jàng ji ah. xam-xam moo tax ñu naan nañ jàng ji ku bind téere bàyyi bi am na lenn lu ci ñu mën si jàng donc bu ñuy wax dara ci ci <laughs> bu ñu wax dara ci ci ci ci ci njiit wala ci loo xamante ne dafa war a doon ci buur ci jukko yi war yaakaar naa ni sëriñ bi aussi je ne comprends pas franchement parlant yow li nga koy laaj ak li mu wax presque ñoo bokk ndeeg bay ma ma ma ma la. non koy dolli xam nga mu doon dolli ma non baax na. bëgguma la dolli ma. comme nekkatul waxam. yow ñu gone gu tuuti wax na ñu. yaa ngi yow tam nag yaa ngi def nag hors sujet. baax na parce que lii nii. charme émission bi. lii ci la bokk. déedéet non non non non li teg ay wax. déedéet non mais non itam. mais dafa ko doon yokkalal rek waaw il faut pas ñu victimiser wu. Ah. waaw waaw d'accord il faut qu'on évolue. waaw ñu évoluer tamit Pape Makhtar. li mooy ah, ah. émission bi bon donc mais juste que juste que euh, bu nekkee dama la wax loo xamante ne da nga jàpp ne lu teggi ne lu ne la euh, maa ngi jégalu mais yaakaar naa ne bu ñuy waxtaan ku nekk am na sañ-sañ boo waxee dara ñun la war nañu la mën a compléter ci benn mais du pour la manqué manqué la dara on avance papa man maa doyal fii wax naa la ko. père moom loolu waaw papa papa Thione tout maa ngi koy wax. Euh, gis nañu Mouhamed Mbaye mu doon mu doon tàggee sangu sang yi ah, papa Thione euh, yow nga woy yonent bi papa Thione toujours. Euh, ñu bëggoon rek nga nga wax ñu par rapport ak cohésion boobu ni mu doon taggee yonent bi noo ko gisee. moom ñee naa ko lool wax dëgg yàlla ndax su ma sañoon lii mu xam ci yonent bi ma xam ko dem naa sax ba koy dog dëgg pour laaj ko mooy yow lii foo koy jànge parce que boo ko xoolee ak ni mu taxawee xam naa ne bon euh, làkk nay nawet waaye itam du lool lool lool lool alors euh, yonent yàlla Muhammad moo gën lépp lu yàlla bind képp koo dégg ak ku mu mënti doon ci barkeem lañ la compal jox la donc euh, euh, wax wax firi lu wér ah man de su ma ko mënoon xam naa ne suma woyu yonent yàlla Muhammad ba dina gën a neex waaw léegi nag comme da dégg nañu fii dinaa la invité ci ci benn son boo xam ne moom moom lañ ko woy bu ko bu ko defee yow itam nga barkelu ci da da ci indi sa apport vraiment bu tubaab fa kàlla parce que wax ji leer na nañ nañ nañ nañ nañ nañ waaw ah, wax dëgg yàlla sama mbokki laayeen itam vraiment ay jàmbaar lañu ñu ngi def lu métti nag woor ba pare di woy waaw ah, ndax woy fii la biir la donc mais vraiment baat bi wuyu na tubaab fa kàlla yàlla na ko yàlla ful ñoom ah, tamit way nañu corona bi ñoom ak moom boo xoolee dafa naa moom moo ko moom moo ko tëj moom Pa Moussa Fambaay benn euh, jàngkat yu bëree bëri ni ngeen waaye corona bi ñoom tamit pare waaye nañ ci def ci tawxiid bu yaatoo yaatu sax nga ñëw ci télé yi justement Papa Thione yow euh, way nga euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan nga ci wax ci way bi du ma ki lay njëkk way mm. du ma ki lay mujjee way te maa gën a tuuti ci ñi la way waaye xam naa ne daal li ma leer te leer yow yaay waaja yow mi lañ doon seet. macha allah ah, loolu de laa wax. ci ci Seydina Limaamu aussi way nga ko. Euh, maam Limaamu day waaw way naa ko way bu boo xam ne nag euh, euh, moom moom tam woy la bu ma teylu parce que su ma rappelé woo paroles yi bu doon mariage. maam li maamu tebbi na aas loolu loolu maa ngi koy fàttaliku ci woy bi